ci sa bakkan daan ne ku xam xetuk àjjana ku ne bala ku fa war a dem ëllëg ku ne bala xet ga xeeña jug nga topp ma daan ne ku ngeen gis topp ma rek xamal ne xamul xet ga wala naru caa dem ëllëg ñun ñii nag ñoo ko xam topp ko damay wax ni xamuñ ci tus sañ benn bëgg a dimbali rek yeenu ñu topp ci am comme faaw ko jug am ko topp sa ginnaaw matuñ ko ay taalibe waaye ñoo fi ne waaye nag na ngeen xam ni képp ku ko yaakaar sëñ Tuubaa yaa gën ku ko yaakaar ndax la alladina la wax taallaqu biya faaqu xayrahum ila yawm alqiyamati nee na yàlla may na ko addina may ko alaxira malaka nil quran tamlikan yadum bi annani xelun wa ibun wa xadim nee na sun borom yëkkati na kaaba ga ci boppam kaaba ga ci boppam la yëkkati jox ma allamani bi qawdihi ilayya albayta rafian bi almardiya kon itam foofa moom ñu yox màkka boo amee sa paas nag bu la neexee dugg ci avion yi dem consulté wu lu ne nga def ko ñu xool ba xam wér nga am déet waaye aj bu mu la fekk ndax kaaba gi ngay wër moo war a njëkk a jëpp yow yow bëggul sëñ bi tawaafa la wax kulli man xale yi ankara hindal ilaahi wan nabi lam yuskara mboolem xeeti jàmm yàlla yëpp bu ci ne sëñ Tuubaa da cee toog loo ci def te bëggoo ko yàlla du ko nam kon bokk na ab sart la ci jàmm yàlla yi bëgg sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ab sart la ci jaamu yàlla yi bëgg sëriñ bi gis nga Cheikh Ibrahima Diop almasar moom ma la doon wax bi mu demagul ci Sëriñ Tuubaa koo fi dégg mu baax rek Cheikh Ibrahima Diop almasar way na la way na la way yu rëy waaye bi mu demee ba gisee ku baax ki bi mu demee ba gisanteeg Sëriñ Tuubaa ci la wax ni saqaltu bihi nutqi saqaltu bihi qalbi wa nutqi wa fikrati wa lawxi wa qirtaasi fa addaxal masaahibi léegi de moom sama xol sama xalaat sama làmmiñ ak sama xalima ak sama daaj Serigne Touba dong laa koy jëmalee dootul jëm ci kenn ñu ne ko déet yow yoroon nga wérdu tiijaan mu ne dootuma ko laal de ñu ne ko yoroon nga wérdu xaadir mu ne woow laa njëkk teg ci suuf ñu ne ko lu tax mu ne amatuma ci ak cofeel maali li baxdaada shawqun laa wala faasi lakin raaytu bi jolof man biatu an faasi lu tax mu ne jolof laa dem fekk fa njuuma gi nga xam ni fi ne sëñ Tuubaa comme jommal dootoo joom mi dafa am benn dof buy dox ba njolloor mu wéeru ci ak daqaar nii jinne ji wàcc di ko jommal dof bi di ree rek sëñ bi nee na dof bu góoram bu jigéen bu góor la yor aw mburu dof bi di ko xool di ree ba yàgg ba waa ji def manière yi nga xam ne comme ko mas a def nga jommi mu ne dof bi ne ko xaaral ma dimbali la da ngay dem ca tóogóor bee am na ñoo xam ne nii doo dofaguñ man damaa jommi ba dof dootuma dofaat kon fii ne exemple bi gën a gaaw ci lot ci lool rek ñii nga fi gis ñuy ñàngal ñëpp li ñuy tiitaroo mooy ay xeeti tajwiid ak yooyu te lii fi sëñ aboo doon wax léegi ñii nga fi dégg ñëpp kenn mënu ko ci kenn ku ko ci man amut tayit nag li alxuraan ji rëy rëy ñoom aaya bu ci nekk la ca njëkk lañ cee am la ci des ila axiril aaya alxuraan jëpp ila axiri aaya lañ ci am alif lam mim ila axiril aaya inna allaha la yastahyi ila axiril aaya atamroona naasa ila axiril aaya aaya bi daa am fu mu tàmbali am fu yam yem nag bu fekkee ni ni nga bëgg sëñ bi da ni nga war a bëgg sëñ bi dafa des ñaare même boo mokkalee alxuraan sax léegi-léeg ngay ndax lii alalam la jum toog moomal ko boppam rasulullah la alxuraan wàcc ci moom waaye gis nga alxuraan wàcc gi mu wàcc moom téewul bu musaana toog ñi koy wër ñi ci mokkal alxuraan dañ leen daan mën a wàññi ñu siiw lool ñu xàmme leen def li ñuy wax bës ndax ñoom danga mokkoon alxuraan waaye sëriñ Tuubaa mi moom alxuraan bi mu dikkee mbedd moo jaar taseeg juróom-ñaari gone yoo xam dañuy mën alxuraan sori yére yu xotteeku yenu ab pot nga xam ne sax ñoom ne yow mënoo ci lu benn aaya du yegg ilaaxi aaya bëgg no rey télé boo xam dem ca rajo boo dégg dem ca yooyu amul solo li am solo mooy daam lu war a jiitu yooyu mooy jébbalu comme ñoom nanguwu ñoo jébbalu dañoo war a noppi Cheikh Ibra Fall dane ah doom naa mooy juble naa de doom jébbalu naa mooy juble naa kon ku jébbaluwul sa mbir du jub ma wax ni yi fi baax yëpp Serigne Touba nee na suñu borom may na ma teg ca bashartani bashartani fi mu ne bokk na ci ba bachartanii ji yii murit yi di jëfandikoo jataayu murit boo dem màggalu Tuubaa jii mën naa ci joxe exemple jam ñaajo ngay génn gaa yi kar la sandwich yi di dàqe nga ñëw waa Bambey ngi taxaw ñoom di joxe nga dikk waa Jurbel ña nga taxaw di joxe ngay boo dikkee Tuubaa gi nag moom benn coono képp a fi am muy raxasu raxasu muñ teggi tegalaat la meneen loolu mooy wa kullu haamin tuwaafini mawaahibuhu bal kullu waxtin tuwaasini bi minnaati sëñ Tuubaa nee na sama xéwal yi heure par heure heure par heure lañ koy dolli minnaat mooy yére yu rafet yeeg boisson bu sedd beeg xeeti fruit yeeg afra yi murid di jëfandikoo ak na a yomb sëñ Tuubaa ko liggéey di xam nga sëñ bi da ngay bu njëkk bala ngaa mën a yegg ci yàlla sëñ ji faw da ngay dem ba ci ab àll di naan ndoxum siyaar di naan ndoxum siyaar di lekk am ñax nekk fa di liggéeyal nit di ko liggéeyal di ko liggéeyal bam ne la gërëm naa la su la gërëmee du la tax a yegg de day yëkkati turu yàlla jox la ko nga dem di ko liggéey su baaxee nga yegg su baaxut doo yegg moo tax sëñ Tuubaa mas naa wax ne ana ñi ñi tudd di ma tudd ku ci noppi ci sa nit loo koy defal ñu ne ko da nga koy jox turu yàlla sëñ Tuubaa loolu dafa yàgg man ne ku ma nopp ci ci yow dama lay def ngay turu yàlla dama lay def ngay turu yàlla nga xam ne ku tudd sa tur rek aajoom faju sëñ bi ne àll boobu bu leen ci demante bu leen naante ndoxum siyaat nekk leen ci biir murit yi bu ñu jàng xasida ngay déglu muy neex bu beñe bi ñëwee nga am ci buñ séddalee boisson nga naan bu kireen nii ñëwee nga naan ci wenn bayit woo man ci xasida yi dee ko jàng tey yegg tuwassilu aqlaami ilallaahi aabidan bila xalwatin wallahu abqaaka ma axnaa dafa bokk ci mbégte yi nga xamante ni Serigne Touba bégal na ko murit yi moo tax léeg-léeg damay tas am na sama benn koo xam dafa may toon suñ tasee mun a basiiran wa nasiiran ma ne ko déedéet basiiru faxat murit yi moom fi ne daanaka xupp leen sax yombut ñoom ñëpp xam nañ ne bu ñu faatu dem àjjana loolu mbirum sëñ bi la jërut sax ñekk ju leen ko jéem a bëgg yooyu nañ leen soññ rek ci ñu gën a bëgg sëñ bi ak nangu koo kennal ak fas yéene di jàng ci xasidaam yi di naan ci kafe gi ak ku wax ci moom lu ñu war tax mu ñu jàng ci xasida gi di naan ci café gi te képp ko wax sëñ Tuubaa loo war tax ak koo man di doon ñu duma la Seex Balla Faali jàng sëñ Balla Faali ku amoon pas-pas la ci sëñ Tuubaa sëñ Balla Faali daa amoon pas-pas lool ci sëriñ bi dafa am bis sëriñ Tuubaa toog ku ñuy wax sëñ Mor Kan Joppam toog sëñ Mor Kane da daan taxan di ko yët sëriñ bi di taxan di ko yët sëriñ bi waaye bu dikkee da koy jël rek ci kees yi day jël ci kees yi di ko jël di ko jël ba mu bari sëñ Tuubaa ne ana ku fiy indi lii ñu ne ko Mor Kane sëñ kii de mat naa yàttal bunt waaye sëñ Balla Faale bi sëñ Tuubaa kii mat naa yettal buntu dañuy bëreet seng wi njëkk jot rek la ni tell aw mbëkk seng wi daanu mu ne ko mbàkke buntu ngi noonu sëñ Tuubaa lu mu bëgg noonu la war a gaawee moo tax waaja moom may jéem a tëkku Ndakaaru xaw ma ëpp doon taabal ji laa fil noonu rek mu lu ne mu wax ma ko yow boo ñibbee di nga xam maa ngi ma daal ni ko tépp ab are ni ko sayir su dara raxut a ngi noonu daray baatin raxut a ngi noonu lii nag jàpp ci man su ma demee ba kër ga lu ma fay fekk soog ma a fekk xam ne ne bala ngaa jéggi sëñ jéggi ñoom Cheikh Ibra jéggi sëñ Fallou ba jéggi sëñ Tuubaa fekk ma fa ba war maa jël nag ba alak ma sab loxo dina gudd lool ne ko bunta sëñ Tuubaa ni Mbàkke Juuf kon nañ ko jekkal waaye bunta ngi noonu mën nañoo jekkal ak lépp waaye bunta ngi noonu bul xulóob maam Cerno Ibra moo dagg tarjumaan ci maam Cerno dagg tarjumaan ci sëriñ Tuubaa ne ko Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax yaa dindi tarjumay jës bu maam Cerno ne ko waaw sëñ Tuubaa ne dënn ba yàgg mu ne ko sun borom daf maa waxoon ni ma loo defati naa ci ànd ak yow maam Thierno soog ne ko li tax ma dindi ko mooy damaa xam ne bu ko murid di gisee dootu jaamu yàlla ndax yu neex yi ñuy tënk yépp sëñ Tuubaa dafa ko caa leeral mu leer nañ kon li am solo mooy nu góorlu lool ci bëgg sëñ Tuubaa bañ koo yemaleeg dara fi ne boo seetee jamono ji wax dëgg yàlla place bi ñu war a bëgg sëñ bi dañ koo jox xeeti mbër yeeg footballkat yeeg woykat yi ba mu ëpp nag wax dëgg yàlla ndax gis naa ci nit ñoo xam ne tey ku ci sa mbër war a bëri sax balaa léewtoo tension bi dina la jàpp ba dootoo ko attan da ngay génn taxaw ci mbedd mi wiccax wiccax say loxo yëngal sa bopp ñii buñ gañee seen équipe duñ reer yooyu yëpp sëñ Tuubaa ko jar ay ñàkk a reer ak yëngal bopp ak am tension yooyu yëpp sëñ Tuubaa dong nga ko jar ku bëgg mbër mu dul daanu nag bay ban nga far ak sëriñ Tuubaa Xaadimu sol ndax nee na ku dul man bala seytaan roofee ab galgal dalaa yëkkati ba ñëpp seen mu dóor rëcc suuf ñu ne ko yow nag mu ne man roofuma ab galgal yàlla na ko roof biraasu man baarazani biraasu man yu baarisul muntaqimal baarisan ñu ne ko waa yàlla ku jël avance am nag mu ne amma mu baarisil ali fa mun safin yàlla ku ko dëkk ci suuf nga jëm junj nañu boppam ba tey sëriñ Falilu Mbàkke mii nga xam ne moo tax ñu daje di ko delloo njukkal ci bis bi leen sant. wuyu ma bismillah nag jug leen jug leen. Sëñ Fallu moom kenn Sëñ Fallu moom noonu ko demee moom da ngeen ñëw ñëpp yéen ñëpp ngeen ñëw rek waaw. Sëñ Fallu moom da ngeen ñi ñëpp ñëw rek. xubbi lahu dëhëra xat af na du ma waxee is xubbi jëmi ar wala la sak ansaan yi yéen ñëpp ñoo leen daa bëggoon sëñ Tuubaa yéen ñëpp ñoo leen waaw Sëñ Fallu moom da cee moom da cee bokkul da génn waaw

ndax moom fi muy ñëwee moo baax day dem ba ñëpp tële boo nee ko Mbàkke yaa fi sës nag ci lay dikk dikk bu gaaw sama waajur moo ma nett li ku ñu wax alaaji seex ñang dafa dikk siyaar sëñ Mor Mbay Siise jox ñetti junni sëñ Mor sëñ moor ne ko mottali ko ba muy juróom mu motli ko muy juróomi junni mu jox ko sama baay ne ko dawal léegi léegi léegi léegi yët ko sëñ Fallou léegi mu daw dikk Touba yët ko sëñ Fallou jox juróomi junni yi sëñ Fallou gaaw del siwaat ci sëñ Mor bi mu del siwaatee alaaji Seex ñang dëpp ne ko man de Cissé damaa defoon accident ci benn R4 boobu r la yor r bi moo dugg ci ron benn camion waaye maa ngi nii dara jotuma sëñ Mor ne El Hadj Fallou Mbacké gaaw ba muy jëm ci juróomi junni yi rek la r bi di dugg di dugg ci ron camion bi nga xam ne li wax njot juróo la ko defal njot juróo am na benn waay boo xam ni dafa feebar feebar bu métti ba ñu wéer ko ci garab nga xam ne boo musaana feebar ba ñu ñàkk ci yow yaakaar dañ lay wéer ci garab di xaar nga dee ñu yónnee ci sëñ Fallou wax ko ko sëñ Fallou ni ki mu yónni demal demal dégg naa ko waa ji génn tàng jër naan ko feebar ba mel ne ñu dikk wax la ko amoo lenn loo may wax lu dénk naa ko di di di di ñaxtu di dem rek waaye fi ñu ko wéer ci garab gi ñoom lañu gis ba yàgg benn picc moo naaw dikk ba tiim gémmiñ ko waa ji am lu mu ci dugal waa ji tes ne jërëjëfati Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne xam na ni su joxoon kee ñaan gi balaa yegg ma faat picc mee gën a gaaw mu jox ko mas naa wax sama baay man ne ko waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko falaa takkil nii ila nafsi fa ahlika kun mujibani haysuma adhoka loolu rek la ko wax yow bu bu njëkk bi daf ni ko daf ni ko waxal mu ne ko yu bajjilu kulli kullaka al yawma sëñ Fall ni ko mbaa màqadin mu ne ko waaw mu ne ko wa insa rabbi la urada sa saawan yi waaye boobu ba léegi yaakaar naa du ma sonni ci yow goog sëñ Fall waxoon neex na ci nun ñi de vraiment vraiment kër sëñ Fall neex na lool barki sëñ Tuubaa Mbàkke kër gee neex ñàkkoon cee bokk dara jël nee na sëriñ bu ne am ngeen ko waaye tugg tey togglu maa ko fi indi tugg tey togglu seetal mboolem ñi aju ci moom tugg tey togglu mooy koo xam doo def dara xëyoo gontoo amooy taalibi yorob doo si liggéeyoo defoo dara ba nag foo toll nag sa cin di neex loolu moom sëñ Fallou ko ci boole loolu tax ma wax ni moo defal murid yi jàmm jeeg yu neex yi moo waral murid yi mel ni ñuy xawaare pisuseer yi ñuy sol mbakke yaa nu koy jàng koo ca gis la muy ñax yi dem nañ taaxi foor yi ñëw nañ léegi sax dañuy njoñ ay ganaar nañ sérieux loolu bokk ci woon sëñ Tuubaa ajjana la ñu warloon waaye addina ju neex sëñ Fallu nee na maa ko ci boole addina addina ju neex ak ayam ci la dara am ci la ñetti ab du xew ci la da yor ak gaal di dajale yére xew ndeysaan moo tax ci wolofal bii sëriñ Moussa Ka dafa gudd sax waaye nañ ci jukki tuuti rek ndax daf cee tudd maamam yëpp ci wàllu xarab wax ni buur yàlla tekki na midaay daamoo takkal ko doom ja moo di seen imaamu lisaanu xaal wax naat yéen islaamu bu leen werante nanu gëm teyraamu midaay ma seex bamba fa lay maqaamu moom la ñu takk ca dënub xam-xam xam-xam mooy ab sang Cheikh Mamadou Fadal ne kurwaale sin dënuur du say maraamu du say maraamu waaye wilaaye la jox maaraamoo sëñ Fallou sàkkuwul woon ñu takkal ko croix la si ndënoor waaye nag na nga yéeg ni xalifa boo fi déggoon ci réew mi jamono joojo fu mu mën a dugg jéem na faa dugg ngir ñu takkal ko croix la si ndënoor loolu tax mu ne ko waaye wilaaye la jox maaraamoo maaraamoo mooy la sëriñ si doon sàkku yow sa wilaaye la ko jox teerub ministère teerub ministère bi la seef yi raamu sa mbooti baatin lay misaal im raamoo daani ko kanuy borom kanuy borom kun mooy fital ñuy raamu nasal na ruuy law bi xam na mbaamoo ne ko sëbal te door te bàq nooy say mbaamu yaay bàmba tey yaa war a wér si maamu looloo tax man ma wax ne sëñ Fallou donduwul sëriñ Touba daf koo doon dondu sa baay ak doon sa baay nag wuute na waaye dondu sa baay ba noppi doon ko jafe na loolu la sëñ Fallou def loolu tax sëñ Moussa Ka ne yaa qutbana yaa qawsana imaamu yaa waarisal qadiim yaa humaamu aleykum salaamu yaa salaamu ayaa imaad al asri yaa diaamu yaa nu jaral nuyoo di fon di raamu laallanaa yaati bi maraamu yaay sunu ndey di di mag yaay sunu sëriñ yaa donnu mbër yaa jaraway yaa joro jox si maamu nasal nuru yëpp yaay imaamu yow mësulaa def la ñu naa xaraamu séer ma ne lu xaraamu te musulaa maamoomu mbaa ngay baamu saxam gi raw na wax raw ilaamu sëñ Fallou li koy xamal raw na wax yu rax mooy li daan ñëw ci yonent yi ab yonent mooy li ñuy def waliyu moom yàlla ci boppam bu koy xamal du yónni kenn am xelam la yalla foot ci wax yu lu mu xalaat rek wax yu la lub bii munawwarun bi nuuri li wax yi waxaadali xayri ulumil mox yi jooju sëñ Tuubaa waxoon moo ko dal loo tax mu wax ne ko ndeyow samaama fondo mag lislaamu sabaay tabax ko mës a def na waamu lislaam maamam jan moo ko fondu maam mu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye fondu maa rek la def Cheikh Ahmad Bamba xaadim rasulullah yaakaar jaam ñi baabul xëyri wa baabu suura le saint de la générosité kooku moo tabax lislaam ba foo ay jaar dugg foo ay neex dëkk kenn dootu tawte kenn du aw naaj dootu sonal kenn loo tax mu ne ko yaa faadilu bnu faadilin samsaamu yaa ahmadu bnu ahmadin xam-xaamu yaa waarisal qadimi yaa imaamu yaa jiite gaa yi makka ak waa saamu dem ba màkka nga jiite fa ak julli sëriñ Tuubaa sëñ Falilu moo ko njëkk a def ci nit ku ñuul bi sallallahu alayhi wa moom lañ ko mos a ubbil loolu itam keneen mosu ko am loo tax mu ne ko umul masakini kada ay taamu kan sul faqir yi yow la réew mi taamu wolof wa ne wolof ni waaw tubaab ne wii di raamu ku nanguwul lee mu ne waaw du jàmm maam sunu xawaa njëkk a topp aadama maam sunu xawaa njëkk a topp xaadimu loolu itam taxaw seetlu am na fi dafa wax ni sayyidatuna xawa alayha salaam moo njëkk a topp yonent yàlla aadama waaye soxna aw bu sa itam moo njëkk a topp seex ma sëriñ Tuubaa Seex Ahmadu Bamba xaadim rasul yaakaar jaam ñi loolu tax mu ne ko yaa doondu sañ-sañ ba ca daam yaa jaamu doo nee xalub tawaab te doo nem maamu yow na murid yi yëpp yëpp taamu ak xaadiroog tiijaanu ak ñay jàmm murid yi moom lañ taamu waaye ñoom mën nañ ko am ñi ci deseen moom lañ taamu dañ ko mën taam raayam ngëneel wi noo ko am nun murid yi yaa ko yor maqaamu yaa yor drapeau gaa ya xam islaamu ne ko xustu maqaaman doona hoo maqaamu moom la Sëriñ Tubaa waxoon ñay daam cay daamu ndakaar yaakaar nañ la ña ngi lay raamu murid akub tiijaane akub imaamu ñëpp ngi lay teeru di bañ malaamu yaay généralub diine yaa allaamu miski yi misik yi ak tambur yi ak junjung yi suñ xalamee démb mu fa rongoñ yi loolu yitam daf ko doon ci Serigne Touba ndax naar ba dafa wax Serigne Touba ne ko daa fekk gars yi ñu toog ñi tagg Serigne Touba ñëpp toog naar bi jug ne leen jug leen jug leen jug leen ñu jug taxaw mu leen kii buñ koy tagg dañoo war a siikare siikare wane te ñu ne ko duñ koy defee yow naar mu ne da ngeen di fecc bu ngeen ko mën ngeen fi tasu bu ngeen ko mënut ngeen sarxolle wa kun mutriban birruqsi wa duxni saariqan la daa dikri ismihi wa am daa yuy tuxni fasaasa moom mu fettal sëñ aw fecc moom naar bi nan sabaq taman sabaq wa faddal taman faddal sabaq taman sabaq wa faddal taman faddal sabaq taman sabaq wa faddal taman faddal noonu la ñuy fecc ne sëñ Tuubaa naar sëriñ sëriñ Moussa Ka ko kilee la dem Gabon dem Galwaa moo tax mu xam la sin danoor xam kurwaa kile la baayam an galam am sowe taas fii saahirin wa baatinin moo jara taas billaahi wallaahi li réew mi taamu te muy lu faat ca bamba yaa ko jaamu billaahi taalaahi la bambay taamu ci ab xalifa yaa ca doy imaamu góor ak jigéen ak fi yé géer ak jigéen ak yéef góor ak jigéen ak fere yi xulaamu ñëpp la gëm yéefara ko islaamu xamaana kuy soowooka xiili xaala di niru waaja te xamul saqaala xamaana kuy woote di laaj hidaaya te mun la faj xaajo amul wilaaya xamaana kuy woote ñu naa ko seex bi te defal ko murid bi sàkkaa seex bi xamaana kuy woote mbirum xalifa te boo demee diwaan diiwaan turam wa deefa bëri na kuñ fi naan xalifa boo demee diiwaan kenn du ko limaale tudduñ ko xamuñ ko sax boo ne diw sëñ diw ñun la ko fii waloon nag bokkut waxuñ suñu xalifa yoon wi ñooñu xam nañ leen te diiwaan koo ci tudd ñu loolu tax sëñ Moussa Ka ne ko xalifa day xaw ca siraatal mustaqim bàyyi xaraam bàyyi cibeel jàpp ni xiim xalifa day dem ba siyaara makka siyaara tay ba te sant mbàkke xalifa nday de day ba woo mbusoobe ngir ay sëriif lañ fawxa nañ daraw be day jubóog woroomi doole xaqiqatoog sariatam lay boole xalifa day am mbooti inni jaahilu dem ba safa ak marwa te tudd fadilu kooku xalifa ngeneel yi ngeneel yi yàlla def ci biir xalifa mënee su koo xam ummuhoo sarifa wa ummuhoo siddiqatun sarifa arifatun mardiyatun maarufa mooy soxna aw buso waaye juróom sëriñ bu soobe dafa waxoon suñu borom ne ko balaa may denc soxna dama bëgg nga waral ma doom ju góor ju ma jur ak doom ju jigéen ju ma jur mooy wali yu mu doon wali yu kooku mooy way jur soxna aw buso soxna aw buso yaakaar naa ni sëriñ bu soobe mi ko jur ak soxna jaara buso ñoo bokk ndey ak bàyyi loolu tax sëñ Musaa Ka ne ko ndayam di mbokkum jaaratul ilaahi ummu xalifatu rasulillahi wàllu ndayam di wàllu ñaari maamam ndayam di baayam baayamay na jaayam déglul ma wax la càllal ak maam jaara ba ca xuseynu man xasan man jaara noonu la ko sëriñ Moussa ko toppoo di way sëriñ Falilou way yoo xam ne kenn musu ko ko way ndax moom na ngeen xam ne surtout njabootu sëñ Fallou ñoo xam ne sëñ Moussa Ka moom dafa yàgga nangul sëriñ Falilou déggu mu naan man Mbàkke dóor nañ ma kalaame nañ ma ca yooye saa xaw tuuti kon ñu rey ma wëlbati nañ ma saahiran wa baatinan waaye jaral nga ma ko yàlla noppi na kon luñ ko fonkoon rek moom doyut xam nga ku ne bay wax naan yéen murit li fekk jàngu leen siin baa sëriñ Faadilu laay def borom Touba loo tax ñu wax ca way wane sëriñ Faadilu doon dul sëriñ Touba daf koo doon dafa wax ni sahru ramadaana ma jublu kooka fii laylatil jumhati kookaay kooka am naa yaqin Cheikh Fallou moo di kooka te yet ëllëg te kooka moom di kooka la di sañ-sañ war a jigóob ay kooka baax gaa dajoon jamono raw naa naw naa kooka ma fi aw jikkoom yu néew cay kooka baax gaa dajoon jamono raw na naw naa kooka am na ngërëm ba noppi ànd ak kooka tërbiya kooka yolu galaati kooka rahmatuna fadiluna cay kooka salaa alayhi llahu barkeb kooka ma lim fi aw jikkoom yu néew cay kooka baax gaa jamono raw naa kooka baax gi moom ñëpp a ko xam kenn ku ci nekk murit bu ne li sañ xaadim doon wax fi ne boo duggee ci barab dangay jàpp ni sëñ Fallou moom yow sama sëñ Fallou rek waaye moom bon bon bon la dafa nooy te neex gone sax mën na koo jëfandikoo. sëriñ sëpp ay kudd lañ sëriñ sëpp ay kudd lañ waaye sëñ Fallou moom mooy luus luus nag bu duggee ci ciin xam ngeen ni yàpp lay boole ak ñeex ak ñam bi lépp ay génn. moo tax am na jigéen ju ko wax ne ju ko ma sax ne ko mbàkki dama laa bëgg lool sëñ Fallou ne ko ak man. mu ne ko Mbàkke dama laa bëgg ba nu ma ci góobee gar ko sëñ Fall ne ko dootoo góob dootoo gar te foo toll di cere kalaax mooy dootoo def dara te foo toll di am li nit ñi am. kon ñu ngi sant sëriñ Fallilu bu baax a baax a baax a baax xam naa li ñuy wax poyam bi nga xam ni ñaare léeg-léeg ci jataay yu mel nii buñ noppee dañ daan bind ay bayit moo xam ci dañ koy jëme ci soññe wàllum ci man doon sëñ Modou xasida yi tey poème bi moom dañ koo far jëmale rek sëñ bi ci ci ci borom bis bi rek ndax moom sunu xarit la sunu mbokk la sunu sëriñ la yàlla nu boole rek ak sëriñ bi loo tax ñu jagleel ko rek poème bi wax ni sëriñ aboo mbàkke aboo cheikh mourtada noo ngi lay siyaarit te di ñaan nga am ridwa di ñaanatit cheikh mourtala sa baay ba mu yàgg loolu tëwér ku bëgg bamba mokk mu bokkal fallu ak cheikh ban ba ak donga yaak soppe ya mooy yaaram ba man mënumaa way waaye tey ma jéem a way samab xarit samab sëriñ mooy rakki ma sëriñ aboo murit la doon saadix ba rafet na ab xol jeex na lool ci bamba soo ko tuddee mu daal di jooy ba yëkkat ngir ak cofeel soo diingatee mu fàqet Seex Bàmba rekk a jar bakkan jaral na la sa rox gi ak sa nooy gi ndax sa lépp la jox nga sëriñ bi sa yëngook sa dal gi jox ko cofeel gu rëy gu dootul mànki yow ku la rëy ci bëgg Sayxuna al Xadiim buur yàlla rangu koy mi bañ di ko yéem ndax Bàmba war na kuy yëngoo ndax bëgg war na kuy yëngoo ko dal bàyyi lu ku ko def naa réy sa dal ku dëkk foofa nga dëkk foofa doo ko génn mukk jiitam yi ak jaanam yi war koy songu muy rëccu naan su ma yëgoon de jébbulu te rëcc wees bu yàgg yaa ñàkk solo ndax de ëllëg bu daan ñëwee ak taar ba waaju ko tuppul danga nga ñaaw ca bis ba te ñaaw ca bis ba moo di ñaaw ga gën a yées ndax ku fa ñaaw dootoo rafet mukk ka ndax li ma xam mooy yàlla ak Seex Bàmba kenn la ñuy doon ku ko weddi san ba te buñ demee ba foofa yàlla na Seyxanaa Ahmada Bamba kay xadiima Seydina fekk xarit ba sunu baay Cheikh Mourtada fam mu ne ko cas taseereel ko rida yal na Serigne Touba jëlaat Cheikh Mourtada fadilu taf ci ab dënnam bi xiiqada hajaatina ndamoo ko sant ko bu wér jox ko ndigal mu ramm ay kuréel Cheikh Mourtada fadilu Cheikh Mourtada fadilu jug ñépp ni xiim muy ramm gaaye di dugal daaru naim sëriñ bi mën na ko te yàlla na ko def bi jaay Seex Ibra waa waaja ko saf sëriñ Abou kon fi nga nekk baax na bul dëpp bul jàdd te fii de neex na wéyal ta dox te bul taxaw da ngay dem kenn du la téye fu la neex nag mbakke jëm te def nga bés yoon wi maa la taamu defar nga ba mbaax ku la roy du juumu dem ba Europe si gil samaam Seex Bamba ak Seex Fallu ak sa baay bu baax ba je suis vraiment très content à toi je vous remercie téeméer bu ko wallahi ça m'a fait beaucoup may wax ci yow parce que murid nga piir et dire miriyaali Cheikh Bamba yi kenn mënta nga am lu bari ça m'a sûr et certain qualité ak dignité personnalité ak efficacité nga booleeg dentité bu gaa yi dee daw nga taxaw mu yàgg loolu te wér ku bëgg Bamba mokk mu mokkal fallu ak Cheikh Bamba ak donga yaak soppee muy yaaram ba mënuma waaye tey ma jéem way sama xarit sama sëriñ mooy rakki may sëriñ aboo murit la doon saadix ba rafet na ab xol jeex na lool ci ban ba soo ko tuddee mu daldi jooy ba yëkkat ngir ak cofeel soo diingatee mu faqet Cheikh Bamba rek a jar jaral na la sa ruux gi ak sa nooy gi ndax sa lépp la jox nga sëriñ bi sa yëngook sa dal gi jox ko cofeel gu rëy gu dootul manki yow ko loolooy ci bëgg sayxunaal xadiim bur yàlla rangu koy mi daay bañ di ko yéem ndax ndax bëgg Bamba war na ku yëngoo ko dal bàyyi lu war nag ku ko def naare yi sa dal nga dëkk foofa doo ko génn mukk jiitam yi ak jaanam yo war koy sonk sonk muy rëccu naan su ma yeggoon de jébbulu te wees bu yàkk yaa yaa ñàkk solo ndax de ëllëg bu daam ñëwee ak taar ba waa ju ko toppul da nga ñaaw ca bis ba te ñaaw ca bis ba moo di ñaaw ga gën a yées ndax ku fa ñaaw dootoo rafet mukk ka yées ndax ku fa ñaaw dootoo rafet mukk ka yées ndax li ma xam mooy yàlla ak Cheikh Bamba kenn la ñuy doon ku ko weddi san ba te buñ demee ba foofa yàlla na cheikhina ahmad kay xadima ahmada bamba kay xadima saydina fekk xarit ba sunu baay Cheikh Mourtada fa mu mu ne ko cas séeréel ko rida yàlla na sëriñ Tuubaa jëlaat Cheikh Mourtada fadilu taf ci ab dënam bihi qada xaaja it danaa ndamoo ko sant ko bu wér jox ko ndigal mu ramm foofa ay kuréer Cheikh Mourtada fadilu jug ñëpp ni xiim muy ramm gaayee di dugal daaru naim sëriñ bi mën na ko te yàlla na ko def bi jaayi say Ibra Faal waaj ko saf sëriñ Abo kon fi nga nekk baax na bul dëpp bul jàdd te fii de neex na wéyal te dox te bul taxaw da ngay dem kenn du la téye fa la neex nag mbàkke jëm te def nga bës yoon wi maa la taamu defar nga ba mu baax ku la du juumu dem ba Europe si gil sa maam Cheikh Ben ba ak say xifallu ak sa baay bu baax ba je suis vraiment très content à toi je vous remercie tu m'as rabbu quoi walaay ça m'a fait beaucoup plaisir may wax ci yow parce que murit nga piir et dire milliards Cheikh Bamba yi kenn mënta tee nga am lu bari ça me sûr et certain qualité ak dingité personnalité ak efficacité nga booleeg dentité bu gaa yi dee daw nga taxaw circonstance ak lu mu tartar yow da ngay am patience boo dee lijjanti mbir dafay am tolérance ba mu sotti mbakke yàlla boo am ordonnance màggal gi nag saa ñëwee ngay joxe paas ak paas di saa waa ji ëboo am classe dundal sëriñ abo tabul dem nag di kël samay gi yàlla na sotti ngay joxe ndigal kon nag kon nan taxaw kon nan taxaw te julli nag ci Moustapha te sa nag Bamba xadimal Moustapha xam naa ñu ngi ko jéggul ndax dina gàtt heure bi dañoo dat dab juróom béy yu gàtt rek yaa faadilan faddalahu alxalaaqu yaa man bi faaraqani imlaaqu waajaatuka alyawma wali rasaaxu kaana bi ma tanmu bil arsaaxu ma xawka anni ma bi nifaaxu anni ma wajaani nafaaxu raddatali ma saanool wifaaxu bi man bi tanaadati laafaaxu jaari daawal fawsu ani taaxu bi ka kama bi ka talat ni taaxu bi ka tawaynaa maa loo nastaaxu salla alayka al akramul xalaaxu bi ka tawaynaa maa loo nastaaxu salla alayka al akramul xalaaxu yaa zal araadi wa sama salli bila addin ala man xidmati qad qabila sayidina muhammadin wal ali wa sahbi fil ali wal maali wa salli man ali waqfir ya gafur li xaari walin bi nafur wajalu rofasan nisaami sarmada busaaratan asimatan li amada wa salliyan wa salliman alayhi fi ali wa man umi ilayhi wa tabi qawla tawajjuhi layin ila siwa qaari antal muyin wajub liman yaqra'u xayra murar wasuku ya rabbal wara xayra marad wajub liman yaqra'u ma yaqbitu bi siwaahu ya jamilan yunsitu ya zal biladi wal ibadi salliya wa salliman ala nabi wa kun liya fi ali wa sahbi wal tarfa ilayka sahibi rida yartafia ya rabbana salli wa sallim sarmada ala karimin kulluhu qad umida sayyidina muhammadin xitaami man arsaltahum kal anbiya ya da saman wa ali wa sahbi wal tajali sanal maqaariqan biyan jayli ya man amarta dawil imani kullahum bi an yusallu alal muxtaari fi rusuli min iqbalan nasala تل قد لبست بها نصما لوجهك يا من قد محك سالي فاقبل نوامي وسالي كله كراما ولا ترد ليا عهدا لي من العمل فاقبله مني يفاد لنا لا مناقشة وقد بغيري أنا إن لي به أملي اذكر ببلك سار وارضين به يا من به زرت هد ولم أملي أنت الكريم الذي أقيت كرمه يا خير هاد هداني أبدل سبلي كن لي بجاي رسول لله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي يا juudan wa takrimatan wala taruddanahu ya muzibal ilali duma nizaama ila sayi siabi xadan wala taruddanahu ya muzibal xalali سواك لم أرج في سر وفي علان بعاق واديك حق خخل الرجاء نالي يا رب كن لي وقود لي بالرضا غراضي وما التماس بجاه المنتقى أنيلي صلي وسلم على المختار في الكرامة وباسرنا بنازم أفضل الرسل سقالنا إلهنا الباقي القديم من أصبع بسيخنا العبد الخديم سقالنا إلهنا الباقي القديم من عضب حب شيخنا العبد القديم أدخلنا الإله في جيب القديم بجاه من من فضله المغني الكريم بلا غروج أبدا آمينا صلى وسلم على ياسينا أحمد جملة البراء يا أحمد مدحوا بذا القديم أحمد على النبي أحمد وأحمد fardan wa qawlul xayri inni amini mahal lamini ji lamini bindum Bamba yàlla suural amini mahal naji amina lamina ji waxrey fawal amini minum Seex Bamba sal dina sëriñ fàllu gan ñi bokkoon na ci moo ji saatam waaju ñàkk ju ñëw seex fàllu may ko mu oomal fa yàllaahu bokkoon na ci moo ji saatam waaju dof ju nu yeew seex fàllu faj ko mu wer bay baaku yàllaahu bokk na ji saatam waaju ñëw bëgg nguur Seex Fallu fal ko mu raw ga yàllaahu ku weddi lii laaj Senghor Senghor falloo ko fal ca kaw Senghor ni seng ci kaw cey Seex Fallu yàllaahu bu ku piis bu leen xapp xappal la seex fal lu waxoon xool leen ko maa ku fi dikk day yokku yàlla sooral amiin sooral amiin ma Seex Bamba yàlla waatiran nadari hal Mustafa Mbakke karaman Seex ab daa mi nag manto ak turki dara ko ko am ci benn bis war nga naan alhamdulillahi wasalli rabbi salaatan lan tialaha hala basirin tana alhamdulillahi sëriñ si yéen a ngi nii tee ngeen a daje bis te dikk def si def yëbbal ko seeni kurus ahmadu day yokku diine di ful di guddalu fan di fekk lor tartaal ku weddina mus ahmadu ku mut musiiti ko ngir suukal la waaju ko mus musiiti faw musal bul faaleew ku la xas ku fas ni bamba sama sum le dëgg jugal ànd sa jëmmu te dem lambar na del si nu gis la dallaahu bil muxtaari qad qudiyat salla bi taslimihi ali amini من الخوارق سير سري مسرعة وديب كلمه يوما بأصواته من الخوارق سير سري مسرعة وديب كلمه يوما بأصواته من الأمر إسراء الإله به بروح والجسم ليلا للسماوات fa xaaba yasri wa jibrilun salaamahu fawqa alburaaqi ilaa aqsaaniha yaati wal anbiyaau wa kullul mursaliina maan taallamoo minhu aadaabal ibaadaati wal anbiyaau wa kullul mursaliina maan taallamoo minhu aadaabal ibaadaati. amiin jërëjëf jërëjëfati. jërëjëf sëriñ Bass Bassi ku nekk a ngi def lu ne te yaa ko tax di def lu ne ngir yow dangaa ngaa defal lu ne yàlla ak sa sang bi kon njàng mi ak waxtaan lépp aw na yoon te kawe na suñu njort jërëjëf gay yàlla sëriñ Touba Mbàkke kàttanal kon dañuy wéyee liggéey bi rek ndax sëñ Abdoulaye Niang ni ma leen ko waxee ak sëñ Ousmane Diouf ñu ngi fi te ñu bëgg a jox sëñ Basirou Gueye ñaari minute rek lañ wax sax ci turu day sopp sëriñ Fallou bi nga xamante ne ni ñoom waa kër gi ñoo taxawal lii ànd ko mbooloo mu takku ci ginnaaw ñu liggéey ba lii am su ko defee sëriñ Abo daal di tontu gan yi ak kilifa yi su ko defee sëñ Abdou Lahat ñang tamit jàng yi jadd yi ñuy sant suñu Abo bu baax ak ñu ay ak ñu magam ñu jëlal suñ suñ Moodu ñu magam ba ku jënd ku mag ak ku ci topp ñu leen sant bu wér yooyu ñu ngeen bëgg Serigne Fallou yàlla na ko Serigne Fallou defar doole Cheikh ba waa kon toog nag ñu ngi ñaan ñëpp ñu ànd ak dal sëriñ si nga xam ne ñoom lañ dippe bis bi muy sët Cheikh Amadou ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp xéewal ci biir yéen a tax ñu defar ko te defar nañ ko fi ne kaddu gi rek moo ci des bu wàccee rek ñu mën nañoo jàll ci biir xéewlu dimbal lañu rek ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa comme defar ngeen ko ba mu egsi fii bu ñu sanoon ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen gën a àggale defar gi xaar xéewal yi ñëw ngeen xéewloo ko ba ba ba suur bu defee ngeen doogu mën ko ñoo ngi jéglu bu baax nag ci ci ci toogaay bu yàgg bi aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina mawlana muhammadul amin wa ala alihi wa sahbihi wa tamkin wa radi an cheikh alxadim wa man tabiahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, xam naa kàddu gi may wax euh, dana nekk kàddu goo xam ne lu jafale ci man ndax li ko waral mooy xol bu fees nekk na loo xam ne it du lu ñu warul woon a du lu ñu warul a lu ñu warul a yëkkati ndax li fi motoon a wax lépp sama sang su baax sa fi teew wax nañu ko sëriñ si nga xam ne ñoo moom jotaay bii tey wax nañu ko suñu jur yi nga xam ne ñoo fi teewoon tamit wax nañu ko kon li ci des dañuy yëkkati ay kaddu yoo xam ne kaddu cant lay doon te cant mënta ñàkk ndax li waral cant mënta ñàkk yéen a jëf lu tax cant mënta ñàkk ndax lii ngeen ma defal day maa ngi wàcc Serigne Touba ne jomb na ko du ma kenn nag ci njabootu Serigne Touba gi du ma kenn ne talibé Serigne ñi gën a ci talibé Serigne ci la bokk kon njabootu Serigne Touba gépp buñ bàyyee seen yitte talibé Serigne Touba gépp buñ yëpp buñ bàyyee seen yitte ñëw teew fii ci bas bii ci ci sama jëmm ju xew ji loolu wax dëgg yàlla jomb na ma lool waaye nag day ne du man du it ñi nga xam ne ñoom laa bokkal bis léegi Cheikh Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne yaakaaruñ lu dul moom gëmoo leen lu dul moom Serigne Touba mi nga xam ne yaakaaru leen lu dul moom gëmoo leen lu dul moom moo waral seen tuwaay bi ci tey loolu nag maa ngi ciy sant bu baax a baax a baax di ci wax alhamdulilahi rabil alamin uh, uh, bis bi nag uh, dañ ko woote woon ngir delloo njukkal Cheikh Mouhamadul Fadal delloo njukkal Cheikh Mouhamadul Fadal ñu jàpp ne lu ñu war la waaye war bépp jullit waaye war bépp doomu aadama waaye war bépp murit loolu yi moo waral ñu woote bis bi ànd ko mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal Serigne Touba ànd ko mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal Cheikh Abdoul Fadal euh, ngi sant mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ñëw ci jotaay bi ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñëwuñ ci jotaay bi te yónnee nañ ci jiiteel ci sant gi ak nuyoo bi ak ziyaar bi Serigne Abou Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal sama sëriñ sama wasila sama soppe sama xaritu bopp. defal na ma ci bis bi tey bi loo xam ne jomm na ma lool wallahi laadim li ma defal ci bis bi maa ngi mën a wàcc Sëriñ Tuubaa ne bu doon doomi Sëriñ Fallu li mu ma defal noonu loolu ay teraanga yoo xam ne mën naa defar bis bi bisub Kazu Rajab li muy rëy rëy rëy rëy ma ko doon màggal sama kër li mu yónnee ci teraanga mën lool maa ko seedal mboolem njabootam gi fi teew yónnee na fi xanaa wax waxtu wi ak xat-xat bi moo leen dem waaye njabootam gi yëpp Sëriñ Abo yónn na leen ba pare boole ko ay teraanga yu doy woo ma téléphone ci ngoon wa xamal ma ne ma xataay màggal gi moo moo moo waral duñ fi mën a teew waaye buñ sañoon ñun ñooy ñëw teewal suñ bopp kon suñu jabo mu suñ fallu ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ndax dundam gi am na njariñ ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool sama mbégte wax dëgg yàlla rëy na ci moom maa ngi sant it euh, sama jur sama sëriñ sama soppe Cheikh Mouhamadul Mourtada ibn Cheikhul Fadal moom it euh, defal nañu loo xam ne rëy na ci ñun li ñu defal jomm nañu lu ngeen gis ci bis bi du suñu mën-mën du suñu alal du suñu dara mboolem lu fi nekk rek sëñ Murtala mu suñu Fallu moo ko fi def ndax bis bii bisam la wane na ko tey doxe na ko tey waxe na ko doyul mu yónni njabootu Cheikh Abdou Fadal bu fi yónni woon sëñ Mourou Mbacké bi nga xam ne moo di ab tawam wala lenn ci waa kër gi ci ci ci ñi gën a lott rek boobaa du du li war a maasale bis bi dara maasale waaye mu yónni sëriñ maam Cheikh doyul mu yónni sëriñ yi daal moom Cheikh Abdou Fadal ñoom it ñu ñëw fi wax fi ay kaddu yu am solo kaddu yu rëy yoo xam ne eh, rëy na ci ñun lool loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax di lañ ñaanal ci doole Serigne Touba mi nga xam ne amuñu lu dul moom yàlla guddal seen fan te tey tey tey yokku seen taxawaay te yàggal leen fi loolu te wéral la te wéral leen maa ngi sant it euh, Serigne Abou Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Serigne Touba Khadim Rasoul moom it ñëw na fi indi ay terangam moom it sonn na lool ci bis bi ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm euh, di sant waa kër euh, Serigne Abdoul Khader moom xaadim rasul sëtam yëpp ñoo na ki leen ki leen jiitee di sëriñ saarifu mbàkke ibnu sëriñ Mourou Abdou Khadir moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm euh, di sant waa kër euh, sëriñ xaasim mbàkke ñoom di suñuy wëllëre di suñuy mbokk di di di di di di mbokk yi ay mbokk yu mat mbokk ñoom ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm ci njiital sëriñ ahmadou mbàkke di sant mboolem ñi nga xam ne cant gi nag maa ngi koy cant waaye daa am ñoo xam ne faw mu jëlee na cant ndax ñoo moom bis bi ñooñu moom la may wax ci ñoom à part Euh, maa ngi sant mboolem ñi nga xam ne euh, ñëw nañ ci bis bi indi seeni teraanga na ci lool bi sant euh, sama way jur bopp sama soppe sama xarit sama jur du soxna Ami Ndiaye moom El Hadj Mor Ndiaye ñu ngi koy sant bu baax a baax sama wayjur la. soxna bi Ndiaye koy sant maa koy sant maa koy gërëm ndax euh, maa ngi wàcc Serigne Touba bi bis bi commencé ba léegi bi ñu ko jàppee ba fi may waxee wallaahi naa amul benn bis bu mu noppal sa saa su ne mi ngi ciy wax di ci jëf da wax ak bay xuloo ndax lépp xuloo sax bëggul lu dul bis bis bis bu rafet. Mhm. saa su ne mu ne ma say naw la ngay woo lépp loo mën na nga def loo mën loo mënul ndax say naw la dong ñoo dee ci bas bi loolu soxna si maa ngi koy sant di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér suñu sag la. suñu suñu suñu suñu njëriñ la ñun njaboot ñun ñëpp xam nañ loolu soxna mi ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko ñu ngi koy lépp lu ñu waroon dund ci ñu ngi ñaan suñu borom xaj ko jox ko mu dund ko ndax dund mi am na njëriñ ñu ngi ko ñaanal suñu borom ko fi lool te ngi sant suñu waajur yi nga xam ne it nekk ci biir kër gi soxna Maram Sène moom ñu ngi koy sant bu baax wax di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wér ko moom it def na ci biis bu loo xam ne ku ne gis na ko moo mook soxna Xujju Jóob ay jàmbar lañ yoo xam ne ñu ngi ci biir kër gi di liggéeyal Cheikh Abdou Fadal loo xam ne bu Serigne Fallou dellusi woon jamono ci ñi muy njëkk gërëm ci nañ bokk loolu ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom leen fi loolu te wéral di sant euh, soxna Ñang moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko moom it yónnee na fi ñëw na fi in in yónnee na fi ci ngoon ba pare ñëwalaat boppam doyut mu indi a baax di gërëm euh, di sant mbokki dëkkandoo yi nga xam ne ñoo ñoo dëkk ci koñ bi ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom yeggal leen fi lool te wéral leen ndax euh, bi bis bi tàmbalee ba léegi amuñu jàmm ñu ngi ñëw ci baas bi di baas di jàpp génn seen i yi abal ko gan yi loolu ñu ngi sant bu baax a baax leen gërëm di suñu borom defal leen tawféex ñu yàgg koo def ñu yàgg ko teewee yàgg cee def seen i xéwal ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di sant euh, di sant euh, soxna yi nga xam ne ñoom it ñëwoon nañ fi euh, di ci génne ku mel ne suñu waajur soxna Oumy Touré moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm moom it wax dëgg yàlla jàpp na bis bi wane na na wane na na suñu yaay la wane na na it ne ab ci kër gi wane na na it suñu mag la moom ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm mboolem teraanga yi ngeen doon gis ci biir bas bi yëpp moo ko fi def ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant sama sama mbokki bopp yi nga xam ne ñoo dëkk ci biir kër gi di euh, ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo bokk ci daayira bi muy soxna Ndiaye Mbakke soxna Ami Mbakke soxna su Gawane soxna May soxna jumaa ñoom ñëpp du ma tuddee ñooñu rek tudd naa ñëpp maa ngi leen sant bu baax wax di leen euh, it li topp ci cant gi damay sant ñi nga xam ne ñooy borom bis bi tey di waa kër Cheikh Amadou Fadal di seeti Serigne tubaay di seeti sëriñ Serigne Serigne Fallou li ñoom bis bi lu ngeen fi gis ci àdduna rek ak lu mu mën a doon. lu mu rëy rëy rëy lu mu tuut tuut tuut ñoom ñoo ko moom ñoom it ñoo ko fi def man du ma ci lenn benn waay laa boo xam ne rek dama dama dama dama jàpp ne dañ maa dañ maa dañ maa dañ maa dañ maa teg ci kanam rek ne ma dirigeel organiseel defal li defal li defal li waaye man du ci lenn maa ngi leen di sant bu baax a wax Mbàkke di leen gërëm euh, sant naa leen gërëm naa leen bu ngeen demee it mboolem koo xam ne euh, ci sët Sëriñ Fallu yi la bokk tey jotu fekk jotaay bi neen ko leeral na ko Serigne Abo sant nañu gërëm nañu wax dëgg yàlla ndax li ngeen ma defal jomb na ma lool bu ngeen fi kenn ñëwoon dong wala bu fi ñett ñëwoon dong wax naa ko Serigne Khadim nee na rawat na ngeen ngeen bi dagg seen i yitte yëpp ba boole ko ba pare boole ko ay xéwal ñu ngi leen sant bu baax wax di leen gërëm mm-hmm. bis bi seen bisu maam la ñu jël ko jëlal lépp delloo waat leen ko ngeen def ci loo xam ne jomb nañu ñu ngi leen sant suñu xol dafa fees moo waral yenn wax yi sax mënuñu mënuñu ko wax ñi ngi sant mbooleem daayira yi nga xam ne ñëwoon nañ fi Euh, waxoon naa euh, Abdou Dieye mu bind ko ci kaye xam naa bu fekkoon carnet bi sax jege na wa dina mën a lim daayira yëpp sant leen gërëm na gërëm leen ku ci nekk ñëw na fii indi say enveloppe def ci xéwal yu bëree bëree bëri bëri ñi ngi leen sant di leen ñaanal ci doole Serigne Touba damay ñaan dama leen di ñaanal mboolem ñi nga xam ne tudd naa leen ak ñi nga xam ne tudduma leen ku ci nekk ma lay sant di la gërëm di la ñaanal la Serigne Baye Diakhaté waxoon Cheikh Abdoul Fadal dana ko woon bu ay jógee jëm ci ñun Cheikh Fadlu wëlbati ko mbooleem lu jëm ci ñun ci ay na wëlbati ko mboolem ku wopp na wér mboolem ku ñàkk na am bekkoor yi nana mees ñu sant bay tari ko ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm suñu xol sedd na lool suñu xol fees na lool def ngeen fi loo xam ne jomb nañu lool ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ci dooley Serigne Touba lépp loo xam ngeen bëgg ngeen ko seen diggante ak Serigne lépp loo xam ne bëgg ngeen ko seen diggante ak adduna lépp loo xam ne bëgg ngeen ko seen diggante ak yomal xiyam Serigne Touba commencé leen ko woon fii ci bas bi jëm ila yawmi diina wasalaamaaleykum wa rahmatullah képp koo xam ne it fàtte naa képp koo xam ne na nga na nga jàpp ne sama matadi moo waral moo waral waaye maa ngi jégalu bu baax a baax a baax maa ngi sant it euh, président commune rurale Abdou Lahad Ka moom it yónnee na fi ndaw sonn ci lool di sant it euh, euh, député Ami Cheikh Yab moom it yónnee na fi ñu doomam ñëw na fi léegi soxna May ñu ngi koy sant bu baax di di ko gërëm yónnee fi ay teraanga yu bëree bëri ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jànkatu xasida yi ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm wax dëgg yàlla dagg nañ seen it yëpp ñi ci ëpp ci ñoom dañoo amoon ay programme waaye bi ma wootee ñun ñëpp dañoo dagg seen it fi jàng fi wax lépp bis bi it euh, li ma leen xamal mooy Serigne Mourou Gallas Mbaye mi ngi fi Serigne Ousmane Diouf mi ngi fi day continuer dañoo bëggoon rek waaw Serigne Abdou Lahad Niang moom it mi ngi fi ak mboolem jànkati xasida yëpp ñu ngi fi ak ñi ngi ñi ngi ñi ngi sant it waa waa waa Bichri TV gis ngeen niñ niñ ba pare di ko jàllale direct fi ne ba may waxee yow fi ne Serigne Abdou Lahad rek mu Serigne Mourou Lam Serigne Fall mooy woo na ma léegi nii dama xamal ne maa ngi ko seetaan Bichri TV fi ne direct lay daw ci net bi képp ko xam ne def nga www point bijutv point com da nga ko gis sëñ Abdoulaye léegi la moo am na ñeneen ñoo xam ne woo nañ ba dama xamal ne ñu ngi koy seetaan kon waa bijutv yi ñu ngi leen sant di leen gërëm seen liggéey rafet na lool te it sant nañ bu baax a baax ci ni ngeen ñu defal nii documentaire yi ngeen defal Sëñ Fallu xol yëpp set nañ ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm waaw di di sant it euh, mboolem kilifa yi fi teew di sant sëñ Saliou Ndiaye moom it sama nijaay sama xarit sama sopp moom jàpp na bis bu baax a baax boobu léegi yéen gis ni muy daawu ko daawu ko faral di def sax waaye comme man maa aye te it sama sama nijaay la mu ne ma mu ne ma lii moom damay dagg sama yitte yëpp ñoo defal la ko moom ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñaan ci doole Serigne Touba ndigg ni ñu fekke ko wat fii ñëpp teew fii bakkan bu nar a suñu borom def ko bakkanu bakkanu bakkanu bëy wala bakkanu xar wala bakkanu ginaar te bàyyi ñu fi ñu dund liggéeyal Serigne Touba ndax suñu liggéey bi am na njëriñ wasalaamaaleykum wa rahmatulahi barki Serigne Touba mu daal ma sama baay bu ndaw bi ma nekkal woo sama yaay mu ñëw mu ne ko ah demal kër sëñ Mourtalaam sëñ Fallou nga wax nga seet sëñ Galas Mourtada wax ko ne ko taalibeem kat yàlla daa dogal maanaam yëf yooyu daal ko te indi nañ ko mi ci kër gi boobu booba àgg naa ci lu ñuy wax euh, crampe booba maa ngi crampe maanaam koo xam ne def nga yooyu noonu ba sa deret ak sa ndox yëpp jeex bi yàlla dogalee loolu am sama yaay ñëw dem kër sëñ ba di seet sëñ galas mii pour wax ko ko ndax ñoom booba lañ jàppoon mooy suñuy wàññeekuwaay buy ñëw leneen lañ fay fekk biñ demee fekkuñu ko fa sëñ Modou mii lañ fa fekk li tax sëñ Modou mënuma ko yemale ku yàlla bind moo ma jot man moo ma jot man Ousmane Diouf fu waaye dem na ko yóbbaale bu fekkee mi ngi jàll ci internet bi loolu nañ ko bind maa ko wax moom mais moo ma jot billaahi barke sëñ Touba barke doomu hôpital barke alxuraan dañoo àgg ci sëñ Modou fekk ko fa sama yaay wax ko ko ba àggal mun ne ko sëñ Galas daa génn waaye négal ma ñëw daal di jël suuf suuf la ko jox ne ko soo demee nee na ko def ci na na na ko def ci ndox jëfandikoo ko fexeel ba ba ngeen diw ko ko mu naan ci rek sama ndax xam nga ku ku ku ku ku demee nen ni bi sama yaay egsee daa jël ab potu ndaa def ca ndox jël suuf sa def ca ñu daan may diw ndox ma jox ma ci lenn la ma mën a naan barki sëñ Tuubaa liñ ma njëkk a jox dañoon as nii di ko dugal sama gémmiñ ba ma ko ba ma ko jox onze moo jot onze heures midi une waa kër gi ñoo bokk añ ba ba affaire bi jàllee sax am na beneen feebar bu ci toppaat bu ñuy wax katiw nga xam ne moom sa articulation yi lay téye waaye man ba mu nee salaamaaleykum ci man ma xam ne fa mu jëm man ndox amu fa dama ne sama yaay jox ma suuf sa rek waaw moo tax nag sëñ Modou yow duma la mën a yamale kenn xanaa ñaanal rek Mbàkke nga yàgg fi lool téwér lool lool téwér xam naa ne taalibib sëñ tubaa rekk la bëgg a doon waaye man xam naa sëñ Modou kum man maa ko xam ndax moo ma jot moo ma jot sañu ko beneen bi ci des jaan musuma mat ma dem xel koom ah ñu àndoon ma sol daal di kalaaket jaan musuma mat jiit musuma fet man ma dem xel koom yàlla dogal ñuy jàng foofa benn waaye daanu fa troisième dan la xaw ma deuxième dan gaa yi defe naa xam nañ ko bi mu daanoo mbëkk camion bi ba camion bi yëngatu bañ ba mu giif ne jàngkat bi laay seet am na ñu ko fekk ñoom xaadim mbaw mi ak ñoom galas defe naa fekk nañu ma xam ne waa ji su ma gisee man du ma arrangé ma ne léegi kon garaawut naa génn man dem dalub maam Cheikh Mbay bii ndax kon jege na ba waa ji tëdd bu nelawee ma doog a ñëw ndekete booba baaxul ma dem dalu maam Cheikh Mbay ba yaakaar ne waa war naa tëdd may waññeeku dugg ci aw xur jànq jànkalaat fett ma ma jàpp ne jaam la bi ma xaadim mbay moom bàyyi aafi mbay lëngee ba yóbbu ma ci sëñ Murtala ñu fëgg sëñ galas mi ñoom sëñ Modou ñëpp ñëw tax man leen ah ñu ne ma lan la ma leen xaw ma day lu mu waaye am na lu ne ma càppi keroog sëñ Murtala mi reena ba ma yërëm ko ndax dana ma eh, cappi moom cappi moom autour rek lay lay xaar cappi ji jiit kay daaw lay def fett waaye waaye cappi kay kon kay jaan la eh, waaye léegi xoole xoole ci kaw xoole ci kaw ma xool ci kaw ndax dañ ne ku jaan maat boo xoolee ci kaw doo gis biddiw yi ma xool ci kaw yaa ngi gis biddiw yaa ngi gis biddiw mu ne ko ah maa ngi gis tuut tuut rek naa tuut tuut daal maa ngi ko gis rek mu ne ma mu ne ma moom da da da ngaa ragal rek waaye xaaral daal di jël suuf sa daal di cay def yëf yi yëf yi tàmbale nagam mi ma ne ko ah, mi ngi nagam mu ah kon ji ji la rek waaye da dugg fee euh, bu ko defee nga barkeeloo rek la fa ne ma dem fekk fa euh, faaruk xar ak da aslef ci pooj pooj bi mi misin ko ba mu kii nga xam ne xaadim mbay mi jiit ji féetutoon moom arrasé waa ne laa ko boole ca ay kanet jox ma moo tax ñii ñii man man man man man xam naa ne man mënu ma leen a fay lenn rek laa ci man mooy lu ma jur tudde leen rek yaakaar leen fu ngeen ma woo ma wuyu bu ma faatoo lu ngeen ma def baax na waaye maa ngi waaye nag bu ma ko def nag ni moom naa am téeméeri at maanaam lu mu gàtt gàtt naa am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent moom bëgg naa ko moom waaw yu àndul ak télé àndul ak dara. nangeen ma ci dimbali ngir jëmmi sëñ Tuubaa bëgg naa ko trop kon nag moo tax rek mën a woon naa ñëw barkeelu waaye sëñ Abdou Lahad Niang ak sëñ Modou Garas Mbaye mii ñoom ñooy ñooy ñooy jàng-jàng yi man ab taalibe laa ci kër gi warab ne ci baaseeg yooyu moo taxoon bi kenn newul ci tànt bi ma ñëw jàng ngir woo nit ñi woo leen loolu rek laa ci jubloon sëñ Abo comme nee nga ma ma baamuwaat ko man naa ko baamuwaat ah? ne ko panget waa sama sëriñ eh, di soxna jaara soxna jaara sama sëriñ waa soxna jaara sama sëriñ moo fi yónnee léegi ne naa jàng maam jaara kon nag panget bi dama ci jaararaat rek ndax ndigal la ci sëñ aboo waaye su ma paree danaa def ñetti bayit ci soxna jaara pour béggale ko su ko defee nag ma daal di jox gaa ñi ndax damay bañ mu guddi loolu laay bañ waaw maa ngi tuub waaw waaw فنجفان دار كون المسيري من الله مالن دو ما مسير ومن زون دو مسير نجل كي دي خادم الرسول فنجفان دار كون المسيري قايدا نورا قايدا نورا قايدا نورا moom mu ñeme fan ya fa ndar kon ne lu sëri mu ne la man du mab sëri mu ma man sax di sëri maa jël kee xaadimu rasul fan ya fa ndar kon ne lu sëri nee naa la léegi si la coow kuma man saw loo dul sol yàlla kenn waaju xaadim ba loo sol man la yabaa ndar kon nee naa la léegi si la coowu li bàyyi waaye démb moom rek la wax moom dong la ba tey moom dong la ba tey man la yabaa ndar kon ne ba séeréer na la bandu mam séeréer kuma man saw loo dul sol yàlla kenn waaju xaadim ba loo sol man la yabaa ndar kon taxaw de ko magal sëriñ Abo yàlla la gën si déglu ñu leen taxaw de ko magal sëriñ Abo jar na ko sëñ Bamba Mbàkke sa doxu nu màggal fan ya fa ndar ko ne ba sëriñ mu ne la man du ba mu sëriñ ko ma man sax la du ba sëriñ fan ya fa ndar ko ne ba sëriñ juróom ñett fukki sëriñ nan woon ak ñett ñépp a daw ba mu des sëñ Bamba mu des fa bay tay le bakkanam fan ya fa ndar ko ne ba sëriñ mu ne la man du ba mu sëriñ ko ma man sax la du ba sëriñ man ñett fukki sëriñ la woon ak ñett ñëpp a ba mu des sëñ Bamba sëñ ji sax sang ko no ba ko laal Bamba Xaadimu Bamba fépp Bamba ñëpp Bamba lépp Bamba lépp Bamba Bamba Mbàkke sa loxo ci ji sax sang ko no بكرم زارنا نسلم نسلم خادم الرسول لله جيدا سانكنا بابا في بابا جي بابا لي بابا فاروق وسب سيرين بابا مكة سلا خاج إسلام جيدا سانكنا بكرم زارنا نسلم نسلم بابا خادم الرسول لله جيدا سانكنا لكو بانغت لكو بانغت لكو kon pangat waaye ne ko pangat nangu ne ko pangat waaye ne ko pangat nangu lislaam ji sax sangu ko na ba ko laam saara na nu sirum mu ba ma xadim ruhum lislaam ji sax sangu ne ko pangat waaye ne ko pangat nangu ne ko pangat waaye ne ko pangat nangu ne ko pangat waaye ne ko pangat nangu lislaam ji sax sangu ko na ba ko laam saara na nu sirum mu Serigne Bamba Xaadimu Rasuul islam ji daw sa ma ne ku kennal Serigne Bamba jugal taxaw ci kaw yéen mu tàggoog bàkkaar kataabe ku sopp Serigne Bamba Mbàkke sa loxo islam ji daw sang ko na bëgg la zaara na lu Serigne Lo dafa Serigne Bamba Xaadimu Rasuul islam ji daw sang ko na na ko pang way ne ko pangen nam na ko pang way ne ko pangen nam na ko pang way ne ko pangen nam benn Serigne وبمثل أحمد غيرك لبسر ما في من لم لم لم لم لبسر وبمثل أحمد غيرك لبسر ما في ku sañ bamba jaaral sa loxo ca kaw te nopp sëriñ moo wane na Ahmadu Xaadimu Rasuul te sëriñ moo ane ndawan noon ndawan ndawan te nopp sëriñ moo wane na Ahmadu Xaadimu Rasuul te sëriñ moo wane na tarba moo waral mbooleem donga donga donga bu sa baale moo sëriñ faggiti almama waral mboolem donga day dongal noo mene bul sabali moo siiw di se ñëpp si faggit faggiti almama waral mboolem donga day dongal dongal bul sabali moo siiw di se borom borom faggiti almama waral mboolem sokku soxna jaara defal ni sa loxo ci borom borom xaale ñëpp bay faggit faggiti yaa ngi te jaaba

ñu naan acca leen boole xam nga boole kum kan ma ne ku sopp soxna juma sey sama xëy boole kum ay wale ji mu dox ay wale kul wóoru suba kul xaale boole kum kan boole kum ay wale ji mu dox boole kum acca leen maam Bamba demoon wéeru maam Bamba demoon wéeru loxo ca kaw maam Bamba demoon wéeru sopp soxna jaara maam Bamba demoon wéeru كبربي كبربا ديزم ديزم كبربي كبربا ديزم ديزم كبربي كبربا سوق سيف البكة سلاقي كبربي كبربا ديزم ديزم ومن ديجل ومن ديجل ومن ديجل ومن ديجل ومن ديجل ومن ديجل ومن ديجل ومن نجر ومن نجر كفاك ربك كم يكفيك فاكر كم كفاك آمن كمين قال للمريض كفاك ربك كافر كفيك من كوكب كان يوجد كوكب الفرد تقرأ كارا بكا كارا كارا تقرأ كارا بكا كسب سرين فلو بكا سلوه تقرأ كارا بكا كارا takran kara takka kara kara sen borom ge takran kara takka kara kara sen farin falu takran kara takka kara kara bin malage kumo ki gadam kulla kulla kin kun wala kum ay wala yadibum wala kum aha kan nam jale nan billah fulam jamo waral wa biti boole càllal ak leer jaaray borom bara baaxi lam sama waral waa Mbàkke dëgg dëgg dëgg boole càllal ak leer jaaray bañax bàccale togg ba waral nam yi dellu nekk nam xëp xëp loo jëtim dafay neen ba soxna jaara mooy sap sap togg ba waral nem ba leen pat wëccëg ndaw leen pat. dara jaara mooy sàcc leen toog mu nga waral. waaw ñam dellu na tonam. xet xet wëccëg ndaw leen pat. dara jaara mooy sàpp sàpp. toog mu nga waral. dem ba gis Ibrahima Seye sa loxo nu ma dara doon. mooy sant kon su ko defee seen la dikk rek mbokk moo jërëjëf sëñ Ousmane. ñu bokk Ousmane ko Ousmane. suñu énergie dépensé ci sëñ Fallou te jar na ko te jaral nañu ko kon Cheikh Abdoul Ahad yow mi nga xamante ne ni boobu ba léegi ñu ngi lay tudd nga ne ci kër gi sëñ Mourou Galas Mbaye itam nekk fi moom it di doom di taalibe di lépp ci kër gi. ngeen ñëw fekk sëñ aboo mii ne ko da nga ci bëgg Serigne Fallou te ñu nit ñuy njabootug Serigne te nii ngeen mel tey sëñ Modou Galas yaag sëñ Abdou Lahad Niang ak mboolem jànka yi xam ngeen ni Serigne Fallou rek ka leen ko def kon bu ñu waxee delloo njukkal Serigne Fallou sëñ Abdou Lahad Niang nii kenn du ko ci mën sëñ Modou Galas Ndiaye mbaay mi noonu kon nañu gën a waaj rek ndax fi ne sëñ Tuubaa moom moom suñu alal moom moom suñu bakkan nañ jël alal ji di ko joxe ngir moom suñu dëmm yi tamit ñu di ko yëngal ngir moom sëñ Abdou Lahad bismillah tafaddal muskura jaar bu baax tey ñaan suñu borom ay murtada alaaji fallu laay ëllëg moom i ramoo alaaji fallu laay ëllëg moom i ramoo waaw waaju laa am yàlla am ay dëram la am am dëram la am këri kër mel ne booroo waaju laa am yàlla sopp sëriñ Fallu jugal taxaw magal sëriñ Fallu loo on na yaay mel waaju la am yàlla am ay yàlla am ngërëm am ngërëm na borom waaju la am yàlla am ay dërëm ay dërëm am ngërëm am ngërëm bayu morgada waaju la am yàlla am ay dërëm am ngërëm am ngërëm na borom waaju la am yàlla am ay dërëm aydaran am ngërëm am ngërëm ngërëm kon bàyyi mel waaju la am yàlla am aydaran am ngërëm am ngërëm ngërëm ngërëm waaju la am yàlla am aydaran sëriñ Fallu am nga am kay nga mel na góor am bay men waaj way te wayoo kii ma way ab dërëm ngay wayal la baati góor waaj way moo jara way ab dërëm ngay wayal si Fallu moo jara way waaj way te wayoo kii ma way ab dërëm ngay wayal la baati góor yaa jooy doyoo kii moo jara way am beram ama soppi Sëriñ Fallu waa jooy doyoo kii ma way ab beram ngay wayal mbaate buuro waa jooy doyoo kii moo jara way am beram ngay wayal لورى وخب مالي خدعته بما لي خدعت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الباخر الباخر عجبني خير باخر في خطا كل وراه بمعني ندرت بكم سيدوما بكم سيسلمة بكم سلمة فاتبكم سموت فابا بمعني خبرت

وأسرار ربك مدتيا إلا أن نهرا عاش أنهارا يلا أمنت من سماء فاستقبل إلا الرحيم لكم لا يفلن تقل أخي الرحيم بشر سيد الوهل نارا نارا نصبي سيف اليوم من مصر سيد وإدارة Tara كما ذكر الكدار أن خير سفي أصل تقل أكواه أقول كلام النوار خدت أنت عيني خدت هديتني ما تأني ساعة أبخر به ليلا أبو وأهواء بسر بسر مرتلا كما يبني صلاة ليلا لما أرجو وأهواء إني أتيت لوجه الله ساعة أبخر به ليلا أبو وأهواء تولي وجه الله أخي به ليلا قاد وأوى تولي الإله دائرك أخي به ليلا أول جيم جسات فجنو دكنا فالمي قمدار ومبالغ fallu ko jóg taxaw te ko màgg si tool jóg leen ngeen taxaw te ko màgg si tool Yo Lord.

jalal yàlla def loo bañ bañ bañ a sal dana laa wala sëriñ Fallu mi doon ñëpp yàlla yàlla def loo ko bañ bañ bañ a sal dana waay wala sëriñ Fallu mi doon ñëpp yàlla yàlla def loo ko bañ bañ bañ a sal dana wala sëriñ Fallu mi